xol yi di benn jëmu yi di benn wax mante doon benn waaye xalaat na rafet ba lépp di benn ta makk maa wungu ni borom bëgge birimaŋ mi ta tendi ñii ni ta moom nga loge mukule jaa ko du ta mbaak asa faat maak jool girbi yéer lañu saaxab de seen baay saaxab nu saaxab de saaxab de faat ma gaynde faat maa soxna Faatma amoon na ma ko yéegi saa xabara soxna Mbay mu dun saa xabara saa xabara Faatma góor sa guddir may sama ca màkk maa wungu ni borom bëggi biri maa ngi may sa tend ñi ni ta moom ngal ne da ku ko ku daw da nyaaw mu dum ko di yaay gañ yaay soxna fa baay gañ de faatma yaay soxna faatma gañ de faatma mu dum mutla fa mu fondu ma jumaaji tabaxal téere kër andira bi tuuba andi baam ci jumaaji baay si mbake soxna lu bañ me ñaaw tukum ko ñaaw baay fata yaay dum mbak bañ mi ñaaw te mun ko Masa macam mak ngundi burung begi bimang mai ta tandini ni gangkal mungalo gankal ma ta tuba gankal ma ta tuba rek demel ja ak jërëjëf mbokki téléspectateurs yi ñi ngi leen di nuyu fii ñu leen di nuyoo dimanche bu jot vingt heures cinq seen émission mag bi ñu naan géewu ndaanaan yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sangu sang yi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ngi gërëm suñuy waajur sant sama sëriñ sëriñ Ousmane Mbacke ibnu sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma Mouhamadou Moustapha Mbacke mu xaadim rasul noonu la nuyoo kilifa diine yëpp di nuyu tamit kilifa du ndokkeel bu baax borom réew mi son excellence monsieur Macky Sall président de la république du Sénégal du ndokkeel tamit soxnaam si baax soosu ajatu Marème Faye Sall ñu koy wax première dame di nit ku baax moom it ñu koy ndokkeel bu baax di nuyu membre gouvernement bi yépp di nuyu tamit le président assemblée nationale Laaji Moustapha Niass ak député yi nekk ci assemblée bi yépp noonu tamit la ñuy nuyoo. sunu mbokk yi nga xam itam ñoom ñoo nekk ci opposition bi ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn ñi ngi leen nuyu di leen sargal ku ci nekk ñi ngi lay jox sa bi nga moom di nuyu nag waa kër gi di ko tàmbalee ci PDG Alaaji Mamadou Ibra Kane ñu ngi koy nuyu bu baax di ko sargal di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla sunu borom dolli jàmmam di nuyu monsieur Alassane Samba Diop directeur télévision et rajo noonu tamit la ñuy nuyoo ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal les hommes de l'ombre ñi nekk ci caméra yi ak réalisation bi noonu la ñuy nuyoo tamit ñëpp bàyyiwuñu kenn journaliste yu góor yi jigéen yi ak animateurs yi ak animatrices yi di nuyu suñu vigiles ci suuf di wax ni nag seen émission tàmbali na muy géewu ndaanaani di am dimanche su jot lii nga xam moom mooy ITV muy télévision bi nga xam dañ koy seetaan fii ak feneen géewu ndaanaan yi nag tey bu ngeen gisee sunu baay bi tijji muy alaaji Boukounta Ndiaye sunu baay baax bi nga xam ne kenn

communicateur tradi moderne muy alaaji Cheikh Mbacké Mboup di kenn ci Daaru Xudóos di kenn ci taalibey Serigne Cheikh Mbacké Gaynde Fatma di kenn ci taalibey Serigne Mbacké Soxna Lo maanaam moom ñu bokk Daaru Xudóos day ñu war a waxtaane Serigne Cheikh Mbacké Gaynde Fatma waaye balaa maa sori damay bàyyi sunu baay mu nuyoo alaaji Boukounta Ndiaye ndax mooy sunu baay judd luñu nekkoon ak sunu baay sunu baay nekkoon wëllëreem muy sunu baay bu baax moom la ñuy bàyyi mu nuyoo pare bàyyi maa ngi lay nuyu alaaji Boukounta Ndiaye maa ngi la fay salbi gi ñaa gàmbee nii bërëm tëdd ñaa gàmbee maa ngi lay fay di kontaan ci émission bi ma invité sëñ Cheikh mu ci bu ñu waxtaan moom mm-hmm. nga invité ma mm-hmm. invité Cheikh sëñ Cheikh bi mm-hmm. sama doom yóbbu si ma sàmb mm. mu sama doom da koy sama doom di ma laaj ci ci Gaynde Fatma kontaan naa jërëjëf Ndiaye Gaynde <laughs> Fatma uh-huh. soxna Fatma amul ma uh-huh. ko réeja saakoor soxna mbay bu nu saakoor saa saakoor Fatma ndeysaan jërëjëf Ndiaye Gaynde Fatma uh-huh. bay si Mbàkke soxna Lo ndeysaan mbokk ndeyam Fata Lo Diol si Ndiaye tudd Momar Diagne la la bàyyam tur. moo tax ma ne ko sama gàdd ndax maam Samba gàdd yaay. jërëjëf bàyyi maam yi Mbàkke bañ may ñaaw kenn kenn mënu ko ñaaw la. jërëjëf jërëjëf Pape. El Hadj Bou Kounta Ndiaye baay moo nuyoo nuyoo boobu tubaarkàlla ñu ngi lay fay bu baax sama ndijoor El Hadj Massamb di sama consultant di sama mbokk di sama xarit li may wax toujours rek ku wër saala bii nga boo gisee masteel ku doon mas boo gisee saali bi nga téye lool la yàlla dogal muy sunu xarit bari xam-xam lool boole koog yar ki teggin moom it mooy sa mu nekk sama di ñu wéttali toujours ci émission bi alaaji mas maa ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyu téléspectateurs yi lay seetaan. waaw maa ngi lay fay alaaji Salla di la delloo nuyu di la ziar euh, la ñaanal yàlla yàlla sàmm la te sutural la. amit waaye noonu lay nuyoo comme ni nga ko waxee rek borom ñi ci kër gi. Mm-hmm. commencé ko ci directeur yi ba ci suuf bàyyiwul kenn. ziar ñep di ziar suñu technicien cameraman yi ma sha allah ñi nga xamni ñotax ñu mën ñoo gis di nuyu sama baay Aladji bu kunta am sama baay la sama nijaay la waaw lolu yag na yag na sama nijaay asan mbaay ak euh, mos ñoo tàggoo bu de bu ci suba ngoon basiru sek ak euh, baayu Cheikh mbak Mboub mi xam xamni alaaji asan Mboub xam ñom ñep doon ay geewul mag nekkon fi ma sha allah daan and wax dëgg yalla di ko rafetal. kon moom ñu ngi koy ziar baax di ko ñaan yàlla moom it mu dal fanam. yokku wéram ndax euh, mag la waaye boo ko yëkkatee ci lu mel ni rek. dana ñëw woyofal boppam wàcc boppam ànd ko yow kon moom ñaanal rek lañ koo desel ñu lay ñaan yàlla sàmm la di kon bu baax na ci Cheikh Mbacke Mbuub di ko nuyu moom it di sama mag di sama xalit di sama lépp ñu bokk Touba bokk Daaru Xudoos waaye bokk géer ñu baax ñi dëgg la muy nit ku baax nag hmm. waaye di sama goro aussi ndax sama rakk la yor <laughs> waaye aawo mi aawo ma ci sama xarit soxna Issa Thiam ñu tuddoo ko yi waajuram ba nga xam ne soxna Issa Thiam waajuram yàlla na xippaajan nit ku baax koo xam ni am nay temps yoo xam ne maa ngi nekk ci euh, ba may tëgg bool di ànd ak as bool ma dem ci benn xew yaayam aji Issa Thiam moo ma ñëw woo ma fekk ma fi ma tëgg ci bool yi tëgg <laughs> mu ñëw ne ma maas yow xanaa xamoo fii nga nekk yaa ko moom. dëgg la te boobu mu ànd ak ñoom jóge Touba. li ma naan la ki ñaan daa tardé ndax day bàyyi ba yàlla dogal mu doog a ñëw. dëgg la dëgg xam nga ku ñaan def loolu. déedéet déedéet. kaay li fii yaa ko moom ndax ñun xamuñu ma. waaw ndeysaan ma ñëw di pré mooy présenté kii doomi bànn mbay ki nangam nangam. ndeysaan xam nga loolu ku baax ko def. wallaay bu doon na naa naa ak booli. Ah, waaw mi ngi noonu. du mi ngi noonu moom di ku baax yàlla na yàlla xaaral ko àjjana. amiin te yàlla dese barke bi ci yéen ngeen koo ñaanal. amiin yaa ci barke Sëñ Tuubaa moom it muy ku baax. ku baax di ku ku civilisé du ku ku ku présentable te intellectuel la jàngaloo ko rek muy wër di sàccaay mango. ak di egaat ak di egaat. macha allah ñu ngi koy baax di la ziar yàlla sàmm la. jërëjëf sural la di taalibe Daaru Xudóo di taalibe Serigne Moustapha Ndiagne. mu sëñ Mbàkke di ku baax. ndax Serigne Moustapha man li ma ko bëggee. dëgg la naw ko yàlla xam na ne mosu ñëw toog. Mm-hmm. waaye li ma ko nawee mooy ni mu jàpp waa kër yi. dëgg la ndax kenn ku nekk. Mm-hmm. lu mu lay defal bu sëñ Mbacke ñëwoon ne du ko mun koo weesu. dëgg la soxna mi Mbacke moomu di taawam bu jigéen. bëgg ko lool waaye baayam bëggoon ko. dëgg la nga xam ne koo bëgg ba tuddoo ko doom. bilaay xam nga loolu baay bu la bëgg la ko def. wallaay wallaay sëriñ Mbacke jur ko waaye tuddoo ko doom. muy soxna mi Mbàkke macha allah di seen baay nga xam ni fu nu waxtaan sëñ Mbàkke sax du fa dem ndax macha allah ndax jooya ndax la ko manqué ndax amuñu sago waaye sëñ Moustapha moom nag téye leen téye sëñ Xaadim ma di sa sëriñ moom it nga yaakaar ko soxna Njóoba tàkku ñu nekk maam Faati Jaxate waaye téye leen ñoom ñëpp kenn ku nekk bu dee war waay dana ko def ci yow lu mu mën a def dana ko def ci yow te loo bëgg ci moom moo xam ne bëgg mu bala ko yow kon ñu ko ñaan suñu suba mu yàgg loolu tëw di nuyu soxna Mbène Darma soxna May moom soxna Mbène waaw mbokk ndem Serigne Abo sama waaja Assane ak Assou Mbacke ñoom ñoom ñu ngi leen nuyu di leen ziar Bakar Gaye na Fan muy comme ni ma ko waxee sànq moom it muy nit ku baax mooy li alaaji Maas wax li alaaji suñu baay alaaji Boukounta wax muy nit ku baax géwél rek dafa garaaw bu jàngee day dangereux <laughs> waaw moom la géwél la mais dafa jàng moo tax dafa dangereux <laughs> moo tax tey moom la ñu invité mais liñ naan loo xam-xam-xam ma ma demba ma demba gën laa xam demba mm-hmm. kon dama koy bàyyi moom mu présenté wu euh, Cheikh Mbacké Mbuub mu wax ñu moom mooy kan bu ko defee soog dugg ci waxtaan wi Cheikh ma bàyyi la nga askan wi euh, yi lay seetaan kontaan nag ci ñëw bi ñëw si bi nga wuy si ndax cofoo bis bi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى أبدا عن الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه سيدنا ولي ولي بركة برم طيف على أه، جسال بيجي أه، ما عندي لي دلو أميو كنت عن لول جاي في إنفيتاشن بي أه، دي لسانت دي لغرم دي نويو سما بابا إلى أجيبو كنت جاي دي نانا لو خمني كم دوتو كو بريزانتي ريومي doon ànd ak sama wayjur alaaji Asan ak alaaji Basu Sekk alaaji Sidi Ndiaye eh, wax dëgg yàlla ñu yàgg lool te dara mosu ñaaw seen diggante yàlla na yàlla gën a guddal sa fan te nag la waaye nag sama góor bu baax bi nga xam ne may si biram kodd biram kodd Faly Mbaye Kane mu ci Gambie ba yëri maa jigéen alaaji maa Samb di naan international eh, wax dëgg yàlla di nit ku baax di ku bëgg nawleem eh, ndax maak lu tey lu ñu njëkk bokk plateau ay lu baax lay wax ci man invitation bi ci moom la jaar kon maas li ngay wax ci nit ñi ci yow la ne yal yàlla gudd sa fan gën a gis dën te may la wér maa ngi euh, rotal nuyoo bi ci ki fi nekkal Serigne Touba Khadimul Moustapha mooy hmm. el euh, saahibal fadila Serigne Mountakha Bachir di mbokkum Serigne Cheikh ay yoon danañ ci dikk hmm. yàlla ko fi yàlla yàggal te muy ko wér di nuyu Serigne Ahmadul Muxtaar mi nga xam ne muy kilifa Daaru Xulus sunu baay bu baax boobu euh, moom soxna Sodou ma Diop mu xarit ma Samba waaye itam bi nuyu Serigne Abdourahmane mi nga xam ne moo toog jataayu sëriñ aham sëriñ du Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma ak sëriñ Moustapha Ndiène soxna ma am yi njabootu sëriñ Mbacke yëpp euh, nuyoo bi daal seen bos matale na kon duggaale na ñëpp euh, wax ci sa bopp nag du yomb ñun li ñuy définir suñu bopp mooy taalibe sëriñ Touba Cheikh Mbacke mu géwélu Xaadimu mu la gaa yi miin alaaji Asan boobu mooy sama baay di loxol la joru sëriñ Mbacke soxna loo di xaalitam di géwélam ajoratu Issa Thiam euh, dëkk Lambeen dëkk Kordogo mooy sama yaay yàlla ak waa Touba maa ngi juddoo Touba jànge école Serigne Cheikh bobu nga xamné ko française bi mu def en 1969 ci la jangé école ba ma fa jógee dem Mbacké ba ni ma dem Université chambre Anta Diop de Dakar 96 ma am fa sama licence anglais 97 ma am fa sama maîtrise euh, certificat de maîtrise anglais bokkoon ak ku mel Mamadou Thior journaliste RTS waye itam bokkoon ak ki nga xam moy doyen fac lettre fu mu nekk nii muy Mamadou Kandji sama promotionnaire lañ won kon lool dal moy jaar jaar bi yàlla dogal nak euh, sama tolé féeti woon bitim rew ndax def na Italie 23 ans di sant nag jëmm yoo xam ne bu mu tuddee Italie dinaa ko sant muy Serigne Mamour Cheikh Amadou Moutada ndax ànd naag moom juróom-ñetti at yoo xam ne nii lu ko tubaab yi lakk maag koy tekkil ci italien euh, mu teral ma defal ma teral nga ju yoo xam ne xam na xam naa yàlla na ma ko yàlla fayal alaaji Sall bi ngi nuyu sama njaboot nag sama famille sama soxna nga xam ne ñu ngi euh, bi nga xam ne moom mooy géegu ndaanaan jërëjëf mi ngi noonu alaaji Cheikh Mbacke Mboub mi ngi noonu taalib Serigne Touba taalib Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma di nit ku baax tey ñu war a waxtaanee Serigne Cheikh Mbacké gayne Fatma Serigne Cheikh di sénégalais dëkk ci réew mi Serigne Cheikh nekkoon koo xam ni ci wàllu diine ji rafetoo na ak ay mbokkam rafetoo ñi nga xam ne ñoom la bokkal diine ji Serigne Cheikh ci wàllu liggéey mu nekkoon un acteur de développement nekkoon koo xam ni ay yëngu-yëngoom ci wàllu liggéey fokk ci natt weesu na ko. Serigne Cheikh mbake ci niveau intellectuel bi mu yoron Serigne Cheikh mbake ci fitwa Serigne Cheikh ca ngor ga Serigne Cheikh ci traje ji tubarkàlla macha allah nga xam ne gep gépp danañ na yar ci kom ci kom ji mu yor nga xam ne mu bax ba Serigne Moustapha mbake Khadim rasul ci la ko yar ci la yar ak njabootam man mi Serigne Ousmane mbake mi Serigne Cheikh mbake ni Fatma mi soxna mbake Sall moy suba wasila Serigne Cheikh ko jur kon moo tax sànq bi ma Euh, sama kër la ñuy waxtaanee njabootu Serigne Touba gépp nag ñu ngi leen di nuyu ndax bu ñu tuddee Serigne Cheikh rek tudd nañu njabootu Serigne Touba gépp dëgg la ñoom ñëpp tudd nañ leen niñ koy defee nag ay bis bu nekk dañuy tànn mel ne mag waxtaan ci moom tey nag ñu war a waxtaan Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma waaye autoraay bu jubee gaar day kon ne bala Cheikh Mbacke bu ma jël bàyyi damaa bëgg nga bëggal ñu Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ñu soog wi ma ngoone lat lat joor ngoone lat ngoone may sa borom daar nde doo ñaawe mu Aziz ak Fatma ak góor gu dugub gi yër lañu raxabare seen baay gaynde Fatma boppam ma gaynde Fatma soxna Fatma amatu ma ko réer saa xabar soxna Mbaye mënu saa xabar saa xabar Fatma gaynde Fatma mënu Mustafa mi fonn ma jumaa bi jumaa ji mënu Mustafa mu di pe Mbaye Mustafa ma moom Mbaye Baawo damñosaloo ba mu bañ ma ne tukun ma ko jawlo waaw waaw tuuti baa woon njaay laat fati mën te njaay masiren te njaay kenn mënu ko ñaawlo birima ngoone lat lat joor ngoone lat soxna Fatma boroom naa si yeen doon jërëjëf Baye Bour Alaaji Cheikh Mbacke Mbour mhm. dañoo bëgg nga waxal ñu mhm. kamo Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ci juddoo jërëjëf euh, Alaaji Salim Bigui Ndiaye yaa ngi laaj jëmm joo xam ne bu ngor ak juddu ak jikko ju rafet doonul jëmm mooy tànk ya mooy bopp yaa ngi laajte jëmm joo xam ne mooy Sénégal ci juddu ak ci jikko yaa ngi laajte mbokkum réew mi mais li ci ak Kajoor ak Bawol yëpp Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké sotti na ci Serigne Touba sama maam rek doy way Alaaji Sall bi nga Serigne Cheikh Amadou Mbacké Gaïndé Fatma mi ngi gane àdduna en 1912 ci Touba. Hmm. Euh, fin 12 début ci diggante ñaari wayjur yu ñu xam muy Cheikh Mouhamadul Moustapha di tawub sëriñ Touba ak Soxna Fatma Diop. Hmm. dinaa ci dikk ci càll gi. bi mu toll ci wàllu xamlu maamu Seexunal Xadim moo ko dalal alxuraan moo mbokk mu baax ma Serigne Mbacké Madina ci albuqaatum waa dëkk muy njaareem. ba ñu fa jógee ñu booleel ak moom mu baax mu ñox sëñ Modou Matar Alilo ci Tindodi mu jàngal leen alxuraan ginnaaw bi ñu siwaate ci loxo Cheikh Modou Moustapha mu yóbbu leen njaarim ci loxo yi alimu sodan sëriñ Mouhamad Dem ba tey seen bëgg xam-xam ak sëñ Moussa formation bu am solo bu mu leen bëggal mu yóbbaleen ci mag mu baax mu sëriñ bu Mbacke nga xam ne bokk na lu bëree bëri ci mag ñi ci dëkk bi jàngal na leen hmm. ku mel ne sëriñ Abdoul

daal di leen di kenn ku ne mu yóbbu la ci barab. Mm. sëriñ Cheikh mu yóbbu ko Nayde. ci boori Belal. waaye itam bu ñu ñëwee njaareem bu ñu daan nekk ci tool yi ba noor bi jot ñu ñëw njaareem sëñ Manoune Sarr ngir bëgg xam-xam dafa leen ku ñuy wax Amid Wan. bu ah. daal jàngal langue française. Mm. ndax sëñ Cheikh daan wax xam-xam xaw bu bokk ci. waaw loolu sax am na jàng bu ci mag ñamoon daan ne sëñ Manoune Sarr moo tax sa doom yu baax yi sa taaw yi di jàng tubaab mun leen dañ leen koy laaj samay mbokk ngeen samay lépp ngeen waaye laaj leen leen ko mag ñi bind ben lettre Serigne Cheikh ci arab yone ko ko diko laaj tax mu jang Serigne Cheikh tontu len ci France loolu muy li ngeen wax xamna ko te limay jang xamu gëleen ko kon na ngeen bayyi seenu njabot di jang xol bobu xam ak bobu bobu bobu bobu sagesse ki moy Serigne Cheikh ci walu ci ap teunk rek ci walu jang ci walu xam-xam Serigne Cheikh nak waxtane ko moy waxtane senegal hmm. jigéen ju bax moko ko jur ju wax soxna Fatma Diop chatna waccit modul waccit mor hmm. ñoo ñu ko ñoo soxna waccit lo leen jur mom ma jaxati faaloo mom ma fatma sey mom sëy jukuma hmm. dem ndam gi mbass xam lol sama faatma ba tey hmm. dankal bu mu xuriji bala moko jur dankal bu mu xuriji bala mok la jor ñoo nit ñi dañuy andi ay lapsus naan Lat Joor mooy maami Serigne Cheikh maam la ci moom waaye du maamam direct mm. ndax Alaaji Maas danka la mu du ma xurije bala ñaan mm. moom ma moom birima ma ca benn baat wax def mu maam ngooni borom bëggee moo jur soxna Faat ngoone lat Lat Joor ngoone lat ngoone may sa borom daar nde doo ñaawe soxna Faat ma danka la mu du ma xurije bala ñaan ko jur danka la mu du ma xurije bala ñaan ma xurije birima maamu góoni borom mbëggee makkon ko mu jaariñ lama sa so tele koy saas ba teñ cande tele ñi jafu len repart dama teñ imri ngone borom ko jorok baw premier askan bëgg saa ko faat ma Serigne Cheikh Alaji Maas am na ci juróom yoon too yombul hmm. Serigne Cheikh soxna Fatma ko jur waccuto ko jur roqee mberu amadou yàlla saakoor Fatma waaw Serigne Cheikh soxna Fatma ko jur danga mën mu xuruja bala ñaan ko jur bala ñaan jeng Aminata Diop saakoor Fatma sëriñ Cheikh soxna Fatma ko jur danga la bëgg mu xuruji bala ñaan ko jur mu xuruji biri mu Fatma saakama faat sëriñ Cheikh soxna Fatma ko soxna Fatma sëriñ euh, soxna Fatma danga la bëgg mu xuruji bala ñaan saa xewar soxna Mbay mbiru saa xewar saa xewar Fatma waaye sëriñ Cheikh Cheikh Modou Moustapha ko jur sama Fatma sala Fatma ngóone may sa borom daal de doo ñaawe soxna Fatma ko jur sëriñ Cheikh Cheikh Modou Moustapha ko jur alaji Cheikh Modou Moustapha Aminata Lo xarit maam Diop Aminata Lo bëgg Saxoor Fatma juróomi tànk ngoog juróom ci bëgg Saxoor Fatma te wàllum ndaam gi ñëwagul hmm. ndax sëñ Modou Sam ko meññi soxna Aminata Lo ko jur Aminata xarit maam ale xari bay mbay xari maam kokki njëgi isa mu ko jëma tam bu dem kokki aminata loo aminata yàlla yàlla xujukumba sir xujukumba faalo xujukumba mam jaj xujukumba ansa xujukumba daaro xujukumba yàlla xujukumba doodal xujukumba xujukumba sëriñ jay ke fam sam param jor pen dafa la bu mbët sey waaw sëriñ Cheikh ab juddum dafa rëy wax la léegi ne la soxna Faat ko meññi soxna Fatou dànkale bu du mu xuruji bari ñaan ko jur dànkale bu du mu xuruji saa xawar soxna mbay ko jur mm. saa xawar soxna mbay soxna mbay bu mu xëri caa mbay ñi xam ne gaal bu ko ku mu jaana bu ko mu jëgënu gën ndaw daanu njaay pende sam daan kon moom réew mi Cheikh Modou Moustapha moom Serigne Touba mooy sama baay rek doy na way doy na way gàngal moo ca Touba waaye jubbi bi dañ ko ma tànnal alaji saala rek mel ja ak teej buy mbaam la yor waaye amul njëgu fas daa aju akum nawle prix ba tax ndax lu ko kooku ñaar ñi ko boobu duñ ay noonu lañ sëñ nag ñu ko meññi. Hmm. monsieur Amadou Moustapha mi nga xam ne mooy taawub Serigne Touba Serigne Touba sunu yaakaar teekal xaadim yaakaar jàmm ñi borom walaahu yéen suur ne yàlla dimbali na ma. Hmm. wallaahi wala ma. Hmm. fil bëri ci géej bu baax de ak ci yéesaan na fi mbila dara ni xaadim mi nga xamante ne moo demoon ci géej gi en 1895 ñëw ñëpp setu Alaaji la ci ab tënk. ginnaaw waxtu yu bëriwul Serigne Cheikh fii la juddoo ndax maam bëgg saaxir Fatma bi mu tuubee ci ma be. dañ ñuko ko bala ñu laa ñëmé euh, da ngay jël ci sey mu jël yalla lo mu suñ daam aale sene mom moom maxtaar mom dam daam itam mom moom daam isa ma ci barké omarum daam ak maxtaarum daam diwaan daam ci sey ak eh, sey parce que damay bëgg léeg-léeg yenn baat yi waaw bu nu ko waxee yi nga xamni dañ ñu seetaan te xamuñu yenn baat yi mm-hmm. muy maanaam néegub sey bo mu tudd mm-hmm. da bëgg nga leeral yi nga xam ñi ngi seetaan xamuñu lan moy sey waaw sëriñ Cheikh tax ak vigëj la garmik wérij la ndax soxna Fatma yaayam wérij la moo ko sëñ Basiru ñoo bokk néegum ndey lan mooy wérij maanaam ay néeg la yoo xam ni ko wérij juddu bu rafet juddu bu rafet ay jax ay géej géej ñoo naan moom Kajoor ay ay ay seey nga am sëñ Modou Saaf seey la sëñ Touba ab gonjox la ay geet ay ay jaafuñ yooyu yëpp ay néegi garmi la yoo xamante ne dinaa nawlante di jënante voilà parce que xale yi absolument génération bi mhm. dañu nekk génération boo xam ne xamuñu xamuñu dëgg la te ci émission yi mel nii mhm. ñu mel ni yéen bu ngeen di wax ñoom dañ ciy jàng dëgg la parce que léeg li ñu leen di jàngal ci école bi mhm. école française bi ak li am ci penc bi du doon benn moo tax sëñ Cheikh Alaaji Sall bi bi nga xamante ni maamam Sakho Fatma tuub na ci Matar Lumbe dañ ne ko bala ñu laa ñeme ndax garmi nga da ngay jël ci seey yi kon nawloo nañu sey mu tàbbi ci néegub sey jël yàlla loolu moom sëñ daam àlle Sénégal am si aminata yàlla ak amadou yàlla amadou yàlla sant kër amadou yàlla yàlla ñu jox ko mbéru ko tur mu jigéen taal yaasin taal kurama moom am ci roqe yi mbéru ak yàlla mbéru fatimatu mbéru ak joor mbéru yàlla mbéru mu jur xarija mu jur fatimatu ma mu jur sëriñ basiiru roqee mbéru moo jur wacci roqee mu jur soxna faat mu jur sëriñ seex sëriñ seex ak sëriñ basiiru seen ñaari maam yi ñoo bokk ndey ak baay moo tax muy doomi ndeyam ci wégeñ macha allah Aminata yàlla mu bokkal ndey bàyyi njox sëriñ kooku njëg isa ma tëb njëriñ te ñëw naan jëm baa ma rey leen mu am ca ndaag ak ma ak pënd bu ya ak xarimaam fekk ndaag mujj ma sàmba gàtt ndaag mujj soxna loo jóob mujj sëñ moor jàndam sëñ moor jàndam mujj soxna loo jóob mujj sëriñ mbàkki soxna ma mareema mujjur mataar ma mataar mareema bu sëñ dindi si la borom dindi àjjani yi mu tudd léegi xarimaam moom la jox ma dundaa jaane sàngoom ba moom euh, Matar Farimata Dieng moom Modou Faako Dieng moom Matar Ndumbe mu am ca Yaaba mi mm. jur maam Samba yàlla jiwu xàcc ñu jox ko tasir Matar Bintuloo moom Binta Fall moom sëñ Jig ma yoro ndaak mu am ci Aminata Lo ak Aminata Fall ak Mbay Aminata Lo lañ jox Amidou moom Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Mustafaa yaakaar yi jaam ñi ki demoon mm. ba dem di jafe dil si mm. seen itam ñëpp bokk ko borom euh, wallaahu yëdd ki wax ki nga xam ne moo ne suñu borom dimbali bindee fi topp nañu ma am ci sëñ Modou Moustapha ak Cheikh Mamadou Lamine Bar Baye sëñ Cheikh di mi nga xamantene euh mom moom la ñu ci noppe guñu borom ngan gu neex gi ci noppi gi ak ci mbégte mi mu am ci sëñ Modou Moustapha ak sëriñ Bara sëñ Moustapha talal loxom dem ci neegu bi ñu jox ko soxna Fatma mom wàcc mom moom gànkale mul ma xurije bala ñaan mu am ci sëriñ Cheikh Fatma ak soxna Xali Fatma ak seeni rak ñu koo xam dañu dundul sëriñ Cheikh mom nak mom lañuy waxtane tay nga xamantene il était d'un silence imperturbable il était d'une générosité légendaire dimbalu joo xamantene ni juddu ba dafa gane si jikko ja te mu mën a ko gan moo tax ñu ne bu jëf ji ree cheikh bu wax ji néewee cheikh Ibrahima ma sama eh ta màq maa moom bu jëf ji ree moom wax ji néewee moom loolee am loolee leeral na ko. nee na wax li tax bari baril mooy lii rek fi nekk. li ngay bëgg a def ak li nga def ak li nga norut ak li nga defagul. te leen jot cee wax. Ah, li ngay bëgg a def jot wax ndax defagoo ko. waaw li nga def ba noppi jot wax ndax def nga ko ba noppi. cey li nga defagul it jot wax ndax boo ko deful la tax kon leen joru cee wax. dëgg te wax lu bari def euh, wax wax tuut def lu bari dafa ko solo lépp. ba waaw te euh, boo waxee ñu yokkal la hmm? waaye boo noppee kenn mu lu mu noppi jooju nag du lu am solo ci moom waaye di jëf lu rëy rëy ndaxte euh, nee na woy nee na géwal bii tey ñaar rek koy bañ ko mu looy baa mu loo maye dëgg oh, te ñaar alaaji Bass waxaatal loolu waaw nee na géwal boobu géwal dañoo ñëw di ko woy bëkk néeg fatta su géwal dafa ne danoo bañ way wi dafa ne sëñ bi danoo bañ way mu ni bëkk néeg bi ni ko toogal ni géwal bi galeel jógal way waaw géwal bi way mu sëq ci poos bi jox ko sëqaat jox ko daa ne bëkk néeg bi kii li muy wax ñaar rek koy bañ koo amul way baa amuloo maye te ñaar yooyu te ñaar yooyu dara dalu ma ci jërëjëf jàkul sa mbaak asi saak faat maa góor yu mu réer lañu saaxabara seen baay faat ma gaynde Fatma soxna Fatma Amadou ma xuyee ji saakabara soxna Mbay mu saakabara saakabara Fatma gaynde Fatma bay Abdou Khan ban ni ñaaw te kum nu ko eh ñaawul Abdou Xaar soxna Xaar xaasit gam ca Touba Sidi Ibrahim ak bu ma ci Linguère Albouri Saynabu Amadou yàlla saakabara Fatma see bëgg mooy sama ca mag maa wu nguuni borom bëgg biri maa ngi may seetaan di ñii ni ta moom ngàllo muy la am solo xam mm-hmm. nga léegi mm-hmm. sëriñ Seex soxna Fat mu ci boo ko jur mm-hmm. bu xuraja Fall la ndeyam tudd bu xuraja bale ñaan jàng ko jur waay bale ñaan jàng ak Abdou Aminta jàng ñoo bokk ndey ak baay dëgg la mm. Anta ñaan la seen baay tudd Abdou Anta ñaan baabu ab sa la baayam tudd baabu ab sa alsan Anta Seck la baayam tudd Alassane Anta Seck Moustapha Awa Ndiaye la bàyyam tudd Moustapha Awa Ndiaye macha allah ah Modou Fatma ah, la ah, Moustapha Fatma Gueye la bàyyam tudd waaye Moustapha Fatma Gueye Brahma Abdallah ko tudd eh. eh. Brahma Abdallah Ayib Abdallah Abdallah Buri Fall mu mari coro jigéen damel ma sàmm tam fa mu bokk dafa bëri dëgg la Abdallah Ayib Abdallah Abdal Bourifal buri faal kib da meel waaw waaw xurija faal ndayam yandu bay bu wala ñaan wala ñaan abdou an abdou amin da wax na ko léegi abdou amin da ñaan mo jur matar maram sall waye matar maram sall mo jël jooja am ci Abdoulaye jooja Abdoulaye jooja ak jaxate ak anta ñaan ñu bokku nday ak bay Deug la Abdoulaye ablaye jaxate anta ñaan ñu bokku nday ak bay mm-hmm. ab saak jooju ak bale naan ne ab saak jooju mm-hmm. bale ab saak jooju awa dembo war kemut mut sinala awa dembo war kemut bala balla mam jeng bala mam jeng mam jeng dam sena Sampan sambant faruma dan faruma peran awa sar mi tax lugo tum lugo san la ilaha illa serin seh ba nga ko legi gitu. te da bëgg mbokk tay mhm. bo gisee saxanta mhm. job deug mu mom mhm. dan bokku ndam deug la wa da bokum bokkam ndax serigne cheikh dañoo bokk ci fu sore moy bonen ah, kan di faruma ak anta faruma bokk ndey ak bay anta faruma mo moo ñëw Louga am ba ko dan faruma ak Samba ak Balla ak Mbour ñu bok ndey ak bay Samba anta faruma jur dam sama mo jur Samba mam Jeng Balla baran mam Jeng mi eh, legi la ilaha illallah waaye kandi faruma moom mo dem dekk ba nan war ak jog jox ko sam yib jog mom te ndakkan mhm. ndakkan yi dem ndaam jox ko Balla Mbourgu moom Mbourgu dem ba sene Bagay mhm. boo ko dem ba seen ba ndey ak bay mom te dam ndàkk balla ndàkk nekk isa jëy ndàkk nekk ñu bok ndey ak bay eh. daam ndàkk ni dem kokki njaga kër Matar Ndumbe jël fa as sa saasum jóob am te Modou Balla sa ak ndaak as ak faaloo sa ñu bokk ndey ak baay ndaak as sa saasum war a wax dëkk ba nan kokki dem pir kër dem ba soirée am fa ma Matar ndaak ak soxna Fall ndaak ñu bokk ndey ak baay soxna Fall ndaak war pir dem kokki kër njage sa jéey eh! am fa Modou maam soxna Fall Balla Soxna Fall Samba Soxna Fall Mor Soxna Fall ñu bokk ndey ak baay Mourou Mame Soxna Fall moo jël kan xari am ci soxna fatimatu ñam xari jang yalla mbiru jor mbiru rokk mbiru fatimatu mbiru bokk day ak am bokkan soxna fatimatu mam jox serigne serigne touba mom serigne bassirou borom mbek mbek tal waye yaram mbiru jor mbiru rokk mbiru fatimatu mbiru bokk ndey fatimatu mbiru mo ju alsan fatimatu mbiru alsan fatimatu mbiru mo xari gumba jaxate xari gumba jaxate mo ju soxna binta jaxate soxna binta jaxate jox serigne bassirou mom serigne moustapha bassirou serigne muntaha borom tal bi ki fi jël corona bi eh. ki ki ki faj rew mi ki bi rew tak ko fay serigne muntaha bassirou Bassirou mbokk ndeyam Serigne Issa soxna barke nañu mbokk jënd ndey jënd bay. yaay demel ak tey ñu woy sa gannaaw. xam nga nag mbokki téléspectateurs yi. voilà la manche nee naa leen saa boo boolee ñaari ndaanaan ba lay bikk. Mhm. yéen ñetteel yi nag yéenay ñetteelu ndaanaan mooy yéen ñi nga xam yéen ñuy seetaan. émission bi li ko tax a jóg nit ki dafa war a xam boppam. dëgg la te nag li mag ñi daan wax les griots c'est les gardiens temple. Mhm. ñun ñoo yor li nga xam ne moom la maam yore woon démb ak bërki démb dëgg la ndax maam moo daan ànd ak buur maam moo daan ànd ak sëriñ maam moo daan ànd ak wàlliyu maam moo daan ànd ak képp kuy ku baax dëgg la bu bu ñu jëfee ba pare maam nag moo daan taxaw ci digg bi di nettali li li nga xam ni moom moo xew ci fanu demoon bu dee xare bu dee ci jàngu bi bu dee ci mënti doon géwél boobu nga xam ne moom mooy taxaw di nettali tey mun nañu tey moo doon ki nga xam ne buñ ko dee wax mooy ministre de la communication dëgg la

loo ci bëgg am mun nga ko ci am loolu mooy première partie bi nga xam ne moom la ñuy waxtaan ci Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ndaxte li ñu am ci temps def dul bëri waaye dañuy ñëw ci Serigne Cheikh Mbacke ci rafetal gu mu nekk woon a ñi mu si mu jamonool nga xam ne ku ci nekk am na teraanga bu mu daan sëq ak yow am na lu rafet lu mu doon sëq ak yow ak mbokk bu mu bokk ak yow sax loolu yëpp naan alaaj Mbacke Mbuub Cheikh Mbacke Mbuub dina ci ñëw bu ko defee nga wax ñu Serigne Cheikh Mbacke ci nekkinam ci réew mi ak mag ñu baax ñu mu jamonoon ba ci ay waajuram yi nga xam ne ay rakki baayam lañu ak doomi baayam yi nga xam ni ay rakki maamam ñoo ko jur loolu yëpp dama bëgg nga ñëw ci Serigne Cheikh Mbacké ak taxawaayam ci réew mi ci la ko jukko mbaag waaw waaw kay la ko jukko mbaag faa lekk ba faat mu sam war ake aliyu maam jaar Serigne Fatma bi dama Touba Aliou maam Diar waaw waaw Aliou maam Diar daa baax Serigne Fatma Diar ma ca Touba waaw waaw eh, eh, alaaji bii sama yaram daw na wallaay wallaay <laughs> lii alaaji bu foddat tey réew xam nañ ne amuñu ay icône hmm. am nañu ay modèle am nañu ay référence waaye nag nañu xool ci artiste yi xool leen ci jëmm yu tedd yi nga xam ne ba ñu toog ba léegi ñu ngi bégal nit ñi yàlla yàlla guddal fan bi alaaji Sall sëriñ si ak mbaaxam daf koo doore ci biir ak njabootam ndax sëñ Saliou Mbacké da daan wax fortaatum jabar poñetum doom poñetum doom moo tax bala maa ñëw ci sëriñ Cheikh ay relation ak ay contemporain mu ñi mu bokkaloon réew muy ay kilifa diine dama bëgg a ñëw ci lenn rek jukki ci li mu ñi mu dëkkaloon hmm. ak njabootu boppam ni mu leen tànne woon ndax demul jéggaani ay bokkam rek la jël ñu mën a loon te ñu dakki diine jënd boppam benn yoon Serigne Cheikh dafa tàll loo xam ñu jox ko soxna Lo Diop moom sëñ Mor Diagne Masamba Gàdd Ndaak Mor Xujjuku Masamba Dacé Modou Penda Bouye ma Tàndumbe mu jigéen Diop xarit lu takku sall mu am ci Serigne Mbacke soxna Lo ak Abdou Fatah Serigne Mbacke mu wusu njëkk wusu Serigne Cheikh en 1978 11 euh, euh, mars bi mu nelawee ba 2005 Abdou Fatah rek mu wutu ko ba 2017 Serigne Abdourahmane ñëw di troisième xalif Serigne Cheikh rambalaat naari góor yi tàllal loxoom ni jox ko soxna astu buri di domi serigne basiru di domi serigne basiru fatumatu mam khadija jëng beru amru yone saakar fat waye serigne sëriñ basiru soxna fatumatu mam mudu mam soxna fall serigne tok njagi isa mu am ca jëm yu tedd yoy mu serigne moustapha mi nga xam ne president euh wilaya bi serigne moustapha astu buri mi nga xam ne ko ambassadeur du senegal en Turquie ak ay rakam bu mu limee du ma matal ñom ñep

muy Serigne Soxna euh, Mame Faty Naydé di nit ku baax bàjjen maa ngi lay ziare Serigne Cheikh la Baye kenn du moom Serigne Cheikh taalal loxo mi jox ko soxna Xaar Ndiaye Sidi moom Sidi moom Alburi moom Seynabu moom Amadou Yàlla moom Sakhir Fall mu desuwaat ci bokkam. moom Alburi Alburi bàyyi ma kat dootul. bi ne pene maa ngi a ko def jéem a birim jéem a kumba Sidi bàyyi bàyyi Sidi càmm ñal xaar. soxna xaar yaay sa ñaar du bañ mee ñaaw te kon mu koo ñaawul bu déggu Mariam Njaay Siidi du bañ mee ñaaw te kon mu koo ñaawul Mariam Njaay Siidi Baari Siidi Alburi eh say nabu Amadou Yàlla saa xaw doon faa bi see bayoon eh waaw waaw noonu Serigne Cheikh dafa tàllal loo xam dem ci ay bokk mi jox ko Siidi ah. moom Siidi moom ga Sidi Gagne ku ko jur Gagne Séré ak Koumel ak Soxna Mbay ak gànkale mënu ma xurija bala ñaan ñoo bëkk saaxawar Soxna Mbay saaxawar Soxna Mbay mënu saaxawar saaxawar Fatma bàyyi juróom liggéey asatakoa Fatma ak Joor juróom liggéey saaxawar seen bàyyi moo xurije birima Fatma ni nga mel juum ba mu toogee di Serigne Cheikh ba kenn naat lu Serigne Cheikh dem na fennam déet mooy hmm. bàyyi Abdourahmane borom xilaafa gi waaw ñu dem ci sox ci soxna yi. waaw euh, euh, ndeysaan mun ma ca ñàkk taxaw ndax mooy xalifa Serigne Gueye Serigne Cheikh daf ko dignité bi ak personnalité bi ak mbaax gi ak uuf njëbu Serigne Cheikh gépp loolu taxam lu dara mooy Serigne Serigne Abdourahmane Gueye ni Fatma. Serigne Cheikh tàllal loxoom ñu jox ko soxna Xott Dieng mum ko jur badiak sala jor mboɓa aktanol kono mboɓa mboɓa sa danki fa misan ɗum gorande celo ganki ɗum guñ bajin mbiram joƴo damel ma jor makuruji kadi masamba takko damete imri goyno param kañol am ci abdou kader mius nour dane way ak sokhna abdou kader mbakke ak eh, eh, yaay je mi samba yoroon yaayi mama ak cheikh mbakke ak sukay sëriñ Cheikh rambal naa di góor yi ñu jox ko soxna Mbène Darmo moom sëriñ Modou Awa Balla mbokk ndeyam Faati Awa Balla ak ndëkk Awa Balla ak Cheikh Awa Balla Awa Balla kumbu joon maam a mujj mu jigéen jub xarlu takku sàll buru jarno geet ba mm. mais seen maam Thierno la ñuy woy seen bàyyi mu am ci soxna may mu gore mais ca Parcelles Assainies ñu joxoon Alaaji Daam Si la yaay Jiili Njaay Mbeen Astulu Mbeen ma jigéen sa gannaaw soxna benn xaagaan boobu soxna soxna may xaagaan boobu doomi sëriñ Cheikh jooju magi sëriñ ak Assane ak Astu Mbàkke Astulo la seen yaay tudd dëkk Njaay jàmm ñaan seen dëkk ah, Astulo Basiru Astulo euh, Koso Astulo Euh, astulo fal dam ma jigéen gu ñub mi laamin yaxa ñoxo bay digin sam burub gaat ma ne damel dàq a tulu basiru a loxo yi ñu ramaraat naa di góor jox soxna Astu Diop soxna Assa Diop muy moom moom Momar Wacit Momar Wacit ak Moudou Wacit yaayu buur Bas ak soxna Xadi Mbolu Wacit ma jëkkate waale mu di faat mu Serigne Khoudia Koumba Serigne Cheikh tàllal loxo ñu ramal naari góor yi jox ko soxna Bali Mbacke moom Serigne Cheikh Awa Bal soxna Bali moom soxna May moom soxna Xari Mbar moom soxna da Xari Daaru Joor si la libaas soxna Jëng si la libaas Fat si la libaas libaas ma fàttali ma jóg maam si la càm mu am ci soxna Astu Bali libaas ma paate ndumbe jëng borom libaas yi soxna asu lañu jox sëriñ Sidi moom Cheikh Abdou Lahad soxna asu lañ gaynde faat moom lañ jox sëriñ Sidi moom Cheikh Abdou Lahad soxna asu doomu lay soxna moom mi kébi mi gën ci man asu binte aram jot mi jigéen jub xar lu takk solo buri

dagal mënu mu xëy ji baal la ñu wooy seen bàyyi ne ku ko dew ñaaw fukki fas ak ñaaral nañ ko ci kawam bakkan deen gille la raf deen teñ tëgg ma nga neex deen jàmm njaay tëgg mu dëngal ma ko duk mba jaay <laughs> oh, waaw sëriñ Cheikh ni jigéen ñu doyoon ñu ràmbal naari góor jox ko soxna Marème Tànjeng muy alaaji Amadou Tànjeng moom sëriñ Mbàkke Tànjeng hmm. ci njaareem moo am ci Yuusufu mu baax mu gore mii nga xam ne il a la sérénité de sëriñ Cheikh Fall mais sa générosité Serigne Youssou Gaynde Fatma ak Serigne Abdou Mari bi ñuy jooy tëpp mu baax mu gore mii rek Serigne Moustapha borom ak ak ma mu nuroon bàyyi lool ma teel a dem Serigne Cheikh ni jógi ñu doy ñu rambal naaru góor yi soxna Kine Fall moom anta naan moom i maacoro jo sar bar li ci mu gëraat maa jooytu na pegg mu Gaynde Fall benn yoon Alioune ak Omar ak tuuti ak Serigne Fallou sama xarit waaw Alaaji Mas. Mhm. des nag ñaar waaw Cheikh dañuy Cheikh waaw damay ñëw léegi. ci yow waaw jërëjëf damay ñëw léegi ci yow. Mhm. xam nga nee na ñiy tux cigarette sax dañuy mayante mego. bilaay xam nga léeg-léeg moom yàgg ni morom moom tuxal ba ma tuxal. dëgg la te fu ne nii ñu li ñuy tuxalante baax na lool de. waaw waaw yàlla na dëgg la dégg nga Serigne Cheikh maanaam génnul boppam benn yoon. déedéet ndaxte nag nee na ñu booy wut soxna njëkk ci say bopp. dëgg la boo njëkkee ci say bopp sa bopp ngay jël te boo jëlee sa bopp jur ci sa bopp. dëgg la kon moo tax li El Cheikh Mbacke mu wax dafa am solo. El Mas man damaa gis sëñ Cheikh daa way wëndeelu. dëgg la way wëndeelu la ndax wax na ko léegi bu génnul boppam benn yoon muy ñi wax ñëpp ñu mu jël muy commencé ko Serigne Mbacke soxna Lo Diop. soxna Lo Diop Mor Dianda ma gàddu ndaag. ndaag ma ma xëri pend buy am teel wax na ko léegi xor fat hmm. waaye soxna soxna Lo Diop. Masamba Gàdd Ndaak Mor Xuja Kumba Masamba Gàdd Ndaak man Masamba Gàdd Njaay Serigne Mbacke soxna Lo ni nga mel dong. waaw foofu mise point rek la woon. waaw mu ñu bàyyi Serigne Cheikh Mbacke Cheikh Mbacke Mboup. mënumaa lim lépp sax ñu Serigne Cheikh njabootam mais dañuy dinañ jukkiwaat yeneen ñaar ñaari soxna rek. waaw yoo xam ne bi ñu rambale naaru góor yi daal. ba ñu rambale naaru góor yi Serigne Cheikh ne jigéen ñu doyut ñu dem. dafa ci waaw rambal naaru góor yi man ko yàlla ko yàlla dolli yërmande yu jox ko soxna Khady Fall moom Cheikh Modou moom sëñ Modou Mbende moom Cheikh Ibrahima nga xam ne mook sëñ Amdi Xadim mi nga xam ne mooy xalif général de Baye Fall ñoo bokk lépp mu jur maître Moussa Mbacké mu ñaawul mi ak Moustapha notaire bi nga xam ne c'est l'un des plus grands notaires hmm. du Sénégal maître Moussa Mbacké Cheikh Ibrahima maamam sëñ Modou Mbende ak Cheikh Ibrahima ko jël Cheikh Ibrahima Ahmadou Rokhaya Fall bi daan jëbi seer kuli mën a si la ba denc fu ñëw sëñ Cheikh ramal naa góor yi ñu jigéen mi ngi fii ci addiye agence de l'information de l'État di baax loolu waaye Serigne Cheikh nag tàllal loxoom fi muy mujjee jox ko soxna Maguette Sall ah. moom ma kodd moom bu naa ma joor mbay ndend ah, waaye bu naa ma joor mbay ndend ak Saymuna joor mbay ndend ak Demba joor mbay ndend ñoo bokk jamawaar moo jur jëriñ ma sa mbay mu jur màggat mu jur soxna màggat sàll mu jur sëriñ Ousmane sa sëriñ ah, ak daba ak sëriñ Mahmadan Ousmane yàqalu seex Bass Abdou Khadir dara c'est président du comité d'organisation du grand magal de Touba dañuy te sëriñ Cheikh Fatma la yor ak calme ga ak efficacité demal mm-hmm. kooku mooy sama sëriñ sëriñ Ousmane Mbacké loolu nga wax moo xam naa ni moom dinaa la ci solo ñetti morceau yu baax <laughs> loolu neex na sëriñ kenn du moom Ousmane Gaynde Fatma kenn yaru lool la nekkoon si sëriñ Cheikh nekk nga xamante ne nag door mbay nag naa faraka ba yaakaar mbay ca mbay rangu Fatma Ndiaye ku ma jënd ngaa di ko déglu mu Cheikh Ousmane. ndeysaan borom na jaay bu baax. waaw waaw. baax yaay baax baax yaa na doon mu la ñu woowee sa nijaay kenn mu koo ñaawal. ni nga mel noonu ki mel nawet ko duñ bi bu ñu yóbbu wu ñu gën ma sekk la joor baayu a ñaawal mu koo ñaawal. Alaaji Sall laaj bi nga laajoon Mariam Sall saa ngoon eh, eh. Mariam Sall saa ngoon eh. ne saa ngoon ne soxna Jóob ni nga mel jóobul waaw xam nga dama la laaj benn question hmm. Cheikh Mbacké moom sa yaram tàng nga duggaat ci Serigne Cheikh jigéen ñi mu jël parce que mënoo aussi nu hmm. hmm. waxee Serigne Cheikh Serigne Cheikh am na jigéen ñoo xam ne ñoom la amagul njaboot dëgg la ma ñaan foofu fóotale bar ci mbët. Ah, waaw waaw loolu moo tax c'est très important pour ñu leeral ko. moo tax euh, bi nga ko defee noonu ma jàll ci maas mais dama bëgg ñu ñëw Serigne Cheikh. Mhm. aussi ci wàllu liggéey tamit. dëgg la. xam nga sànq jëflante bi. Mhm. boole ñaari question yi. Mhm. jëflante bi kilifa diine yi jamonoonteel. ak Serigne Cheikh tamit ci wàllu liggéey. ah Serigne Cheikh Alhaji bi nga yàlla daf ko may ouverture d'esprit muy un homme qui avait dévancé son temps un visionnaire koo xam day toog di gis lu ñëwagut. Hmm.

ànd ak mbokk yoyu ñu dem taxaw ba luwaayoo bu jallu ndax su jallon tay ñok tuba bi ñoy yor code de la famille Serigne Cheikh yemu coro la daf ne kat yalla def ne wax waxtasimu bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu cramponé en la corde du Seigneur et ne vous dispersez pas bu ngeen pàggoo Serigne Cheikh taxawal li nga xam mo moo njëkk doon dajale ay mboolum jur ngir jëm yalla muy dayir fu ab fu keuru dina nek Sénégal du fa rëy ab daayira ko fa def ah. turu daayira gi gémmiñu Serigne Cheikh Fatma la njëkk a 1943 la énoncé euh, concept bi Serigne Moustapha jënd aw carte jëndal woy juroom soxna Aminta ko aw carte muy dox ak jafé jafé parce que Serigne Cheikh il a réussi un exploit moy dafa nekkon ci jamono ki mu jamonoon toon muy le président Senghor Yalla dogal ñu gis-gis mais il non seulement cela malgré lolu Serigne Cheikh a réussi ndax dafa samp daayira njëkk am récépissé dajale mbooloom ñu jullit ngir jëm yàlla en 1965 tey foo dem ci àdduna dayiri murit yaa nga fa dayiri tijaan yaa nga fa dayiri laa yéen ndax ne ku dajewul sa mbooloo say benn benn di la fenn ba nekk fa mbooloo. Serigne Cheikh en tant que patriote et averti daf ne ab Serigne du yam ci ab dërëb jullikaay dafay jóge ci dërëb jullikaay bi tàbbi ci tool yi ñëwaat ci der bi. te loolu mooy le fondement de la philosophie mouride mooy al xidma wal ibada c'est le culte du travail et de l'adoration Diamou yalla bu mel ne euh, doo fi suba ngay faatu waaye di liggéey bu mel do fi jóge Serigne Cheikh dal ne damay investir en 1944 la njëkk a en 1944 la ànd ak jërëm Cheikh Amadou Moustapha ñëw Dakar ga euh, teertu si ki nga xamne mom moy le président de Gaulle bi mu ñëwé euh à l'orée des indépendances 48 mu dox dox bu rëy en 1949 nag ci la njëkk génn réew mi dem Makkatal Mukarram hmm. bi mu wuutu sëñ Modou Moustapha 33 ans la am Alaaji Saali Bigé 1912 1945 am 33 ans wuutu ki wuutu woon Serigne Touba wuutu ko 33 ans te bu xoolee 33 ak 33 c'est mooy limu allahu alif laam laam al saqeer loolu baatin la Serigne Cheikh en 1949 waajuram ne ba mu am ñeenti at mu wuutu ko daal di nag enclenché périple boobu nga xam ne ci la war a war woon àdduna bi di wut nag loo xamante ni day jàpp jëriñ Afrique mu dem France dem Maroc dem Beyrouth dem Liban dem ci mboolem pays golfe di xool un modèle d'éducation boo xam ne nii parce que dañu Serigne Cheikh dañ ne ku bëgg defar peuple da jàngal ndaw ñi. dëgg la Serigne Cheikh moo njëkk a implanté école française Touba. Hmm. en 1969. école boo xam ne nii c'est cette école a produit la crème de l'intelligentsia du mouridisme tey képp koo gis tey mu nekk ci yoonu murid am teranga di intellectuel Serigne Cheikh Amadou Bamba yëmu ci sax na ay chante Diop même imam Mbaye Niang produit Serigne Cheikh Mbacké la xoolal loolu même imam bokk na ci ñi nga xam ne Serigne Cheikh dimu na ko mu jàngi kon Serigne Cheikh liggéeyam ci wàllu xam-xam en 1900 dans les années 50 la implanté école française franco-arabe ci Njaaréem bi mag ñi demee ni ko li ngay def lu mu doon tubaab yi bokk ci man xam naa jëf ju yóbbu nit sawara waaye xaw ma njàng eh, xam-xam bu yóbbu nit àjj eh, kii sawara daal di ni leen école sama biir kër laa koy def en 1969 mu implanté école française dugal ci ay doomam ak taalibé doomam tey yooyu ñu ngi ci mboolem sphère di ko doxal Serigne Cheikh nekk actionnaire majoritaire ci SICAP yaa ngi dégg SICAP Serigne Cheikh soxna Fatma amoon ma xureeji saakaro soxna fa bu mu saakaro saakaro Fatma gaynde eh waay gaynde gaynde eh, bay gani baat ma bay sin mbagi soxlul bañ me ñaaw te kun ko ñaaw mbokk ndeyam du fa taa bañ me ñaaw te kun ko ñaaw du fa taa bay bay soxna mbak na mbake mu baax mi te kun ko ñaaw waaw waaw sëñ Cheikh waaw laay bi ñu màngal bañ me ñaaw te kun ko ñaaw laay sama réalisateur comme dañoo dugg ci Serigne Cheikh Mbacke ci wàllu liggéey ci jamonoy Abdou Diouf mhm. am na benn waxtaan boo xam ne waxtaan noonu na ko ak ki nga xam mooy président Abdou Diouf. boobu premier ministre la. premier boobu Abdou Diouf moo nekk premier ministre. ci ay président Léopold Sédar Senghor loolu Abdou Diouf ñoom ñaar ñu ànd bu fekkee laay extrait boobu mun nga ñu ko mun nañu ko baaxee ñu déglu la sax Cheikh Mbacke Gaïndé boo waxoon ci jamono jooju. ndeysaan ci wàllu liggéey. buy ba mu mën la. a baax. ndax mu ngi te yéen a góorgóorlu ci di jéem a xam soxla nit ñi di leen seeti di jéem a gis loolu di seen warugar ci ñoom lu ngeen ci man ngeen di ko jéem loolu lu baax la ndax mooy seen liggéey li nga xam ne moo man nag li ma la ci wax rek lu gàtt moo di képp koo xam ne da ngaa ne fii fii réew mi te wax ne defar rek moo la tax a jóg da nga bëgg a liggéey ngir dolli ko réew mi jëm kanam loolu daal soo ma gisee ak soo ma gisut booy xam ne am na maa yow loolu ndax da nga ma ca fekk loolu rek laa fi def defuma fi leneen ndax dama jàpp ne réew mi lu ci xew rek man la ci xewal ndax réew boo xam ne yow mën na ko gën a jëm fenn amula dara feneen lenn lu mën a mel ci ngay nekk su mettee ci ngay nekk su baaxee ci ngay nekk doo ko gën a jëm fenn kon man ci defar ko ndax mu yaatu ba toogaay bi mën rafet loolu war nga koo def kër ma def nag loolu moo ko andi loolu ngeen wax nag ci solo yi ferme yi ñu war a créé ci région bi wala sax ci réew mépp ñu ngeen ko wax yoon bi fii daaw itam li nga wax rek mooy li ma leen waxoon loolu ba tey ma nga dem ci dëkk yi waxtu woo xamee ne jëm nañ ca na ma leen waxoon rek foofu laa ne ba tey jekk naa ca bu fekkee suuf la yoo xam ne mënees na koo liggéey xaraam naa ko bu fekkee aw nit la ñoo xam ne mën nañ ko liggéey itam am na fi matériel yu ko war a liggéey it lu mu ci soxla woo mën naa ko am am lu mu ci am it mën naa ko jënd kon nag tàmbali bi ak encadré waxtu boo xam ne tàmbali ngeen ko nee ngeen ñu nii rek te mu jiitu ci lay bokk. boobu ba tey nag loolu rek ci mu ngi ci sama xel fi ngeen tollee nga xam ne boobu ba tey jóguma fa réew mi loolu ngeen xalaatoon ba di wax naan war nañ koy def ay forage def fay ferme ngir war a mën a jéem mbéy mbéy moo xam ne ñu doy rek mooy di ndax mbéy daal mënees ko waaj taw te xamuloo ko mu jeexle xamuloo kañ muy dikk foog nga am leneen loo xam ne dafay aju dafa dale ko ci loolu la bu dikkee baax na su dikkul it am leneen loo tàmbali su matee baax na am leneen lu ko mën a mottali loolu mooy li mënta ñàkk tey ci lépp lu amul teew mi itam coono bi dafay nekk rek kaddu googu ñu dégg mooy kaddu Serigne Cheikh Mbacké Gaynde Fatma. ndeysaan. ci wàllu liggéey. Mhm. ci biir kaddu gi lépp mu ko doon lu jël ci wàllu mbay. Mhm. parce que ñoom àlluwa ji daara ji. Mhm. tool yi dëgg la. ñoom loolu la seen waajuroo seen maam ja Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul loolu la nekkoon ak taalibe yi. ñoom it bu nu màggee ci loolu la nekk. mi ngi wax Abdou Diouf naan ko. nañu fexe rek ba réew moo comme réew moo xam ne ñun mënuñu ko génn fii la ñu am. Mhm. lu nu am rek war nañ ko mën a def ci réew mi. dëgg am nañu ay projet projet yoo xam ni ci suuf la jëm bu dee suuf su ko def am nañ ko bu dee ñu ko mën a liggéey am na fi bu dee tamit matériel yu ñu war a jënd yu ñu war a jënd mun nañ koo wut kon kooku accordu état rek la doon xaar. dëgg la te loolu c'est normal parce que nag même boo dee Sénégalais tamit am na loo xam boo ko dee def. il faut nga am ci consensus bu wóor ak état bi kon Serigne Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma ci wàllu liggéey mu nekkoon ci jàmbaar joo xam ne kenn mënu koo na na natable dégg ngeen sëñ Ba sëñ Ba Cheikh Mbacke mbub li mu wax tukki na ci réew yu bari mhm. mais tukki yooyu yëpp li ko war a waraloon mooy lu mu gis ci bitim réew. Mhm. fexe réew mi di Sénégal am mhm. wut ay partenaire ñu mën a suqali réew mi kon nag ñoom sëriñ lañu cheikh lañu waaye nag nekk nañu ñoo xam ay citoyen d'honneur lañu. kon Serigne Cheikh Mbacke Gaynde ma loolu mooy li nga xam ne moom la ñu tënk ci lu tuuti ci li ñu mën a wax ci wàllu liggéeyam ëpp na sax loolu waaye lii dañ koo jukki rek pour jox leen pour xamal leen ni Serigne Cheikh liggéeykat la woon visionnaire la woon ba pare doonoon na koo xam ne tamit euh, lépp lu mu sàmbe ci réew mi la ko dugal euh, Cheikh Mbacke Mboup mhm. Alaaji Maas toll nañu jamono boo xam ni liggéey moo am solo kon ñii ba nuy jóg di liggéey lii war naa mën a yee xale yi ñu xam ni seul le travail paye liggéey rek moo am solo Serigne Cheikh Mbacke Mboup mhm. ci dafa ne xale bu mu xëntawoo lu dul jàng ndax boo jàngee xam boo xamee am am boo amee jëriñu am man man jëriñ jëriñ say mbokk say mbokk waaw waaw dañu woon jàng leen waaw boo jàngee xam ku xam am waaw ku am man waaw ku man tedd ku tedd tere say mbokk kon loolu muy lu am solo loo xam si ne wax na ko tey góor du benn góor du benn. eh waay Fatma yaay gaynde Fatma yaay eh, muy la am solo loo xam ne. ah wax na ko. te loolu wax nga ko dëgg ndax ndey du benn baay du benn. lay loolu muy dëgg. <laughs> ah Serigne Cheikh tey liggéey boobu tey ku mal ne alaaj Hadj Ngalgu Ndiaye. ndeysaan. pap Baye Pape Ndiaye noonu la ko waxoon benn bis waaw ah, dafa ñëw benn bis booba booba moom. Serigne Cheikh am na benn tubaab bu muy liggéeyal. Mm-hmm. tubab bi jox ko muy liggey sëñ Cheikh sëñ Cheikh Tidiane si. Hmm. al maktum wolu ko niko arrêté liggey tubab bi. mo hmm. arrêté ko. Hmm. ñepp ni nak ki dafa dof la mo koy liggey tubab nga bayiko mu dem ba am ay wer sëriñ Cheikh wolu ko mu ñëw tawon niko nak baye nga tubab ba nga mu ne ko bàyyi naa ko bu yàgg. mu ne waaw man ak sëriñ Cheikh Mbacke am quota bari ci gerte gi. bëgg la jox ngay ci quota yi ngay jaay gerte. di ko jox gerte googu muy jaay alaaji ngal ko daana dem ba otoom daan na ko romb du ko xàmmee oto bu mu moom ah jëfe ndigal te jëfe ndigal lañ émission bi eh. damay yaakaar sax damay xalaat mu am deuxième partie ndeysaan waaw ndax du doy du doy li mën a jeex dinaa xool daal ak <laughs> waa direction bi uh-huh. il faut ñu am deuxième partie. te li war a jàll lépp daal li li duuf lépp xajul ci cin bi. xajul ci ah, réalisation Serigne Cheikh yi. Uh-huh. Euh, partenariat yooyu nga xam ne daf doon wër ci àddam di ko wër lépp rek daf ko delloo si réew mi ndax daf ne ci vidéo bi daf ne Abdou Diouf képp ko xam ne yaa ngi xool lu suqu réew mi ak li ko développé maa ak yow boo ma gisee boo ma gisut ñoo ànd ndax am réew boo fa nekkee te mënoo am bu dul moom li koy doxal ca ngay ne dëgg la Serigne Cheikh loolu daf ko digle pare jiitu ca amoon na ay tool Libéria ba président Tolbert di nekk di xaritam William Tolbert Serigne Cheikh amoon na fa ay tool Serigne Cheikh amoon na toolu maraîchage à Mbao na ko fii ci euh, Richard Toll amoon ko dans le delta du fleuve Serigne Cheikh yemul ci loolu dafa doon ci li nga xamne mom moy gerté amna ku wax Ousmane Camara di borom xam-xam bax associé won na ak mom taxawal li nga xamne moy la société Mouride lepp lu jëm ci huilerie ak transformation. ne woon na dans ci transformation tomate Serigne Cheikh mi ngi won riziculture dans le Boundou dans le distal du Saloum. Hmm. Serigne Cheikh mi ngi won ci walu immobilier wax naa ko léegi ci SICAP. ku ni SICAP Serigne Cheikh di yaakaar dafa dëkk rek dédé dafa nekkoon actionnaire ci SICAP muy société immobilière du Cap Vert euh, maa ngi nuyu au passage ñi nga xam ne ñoo fa nekk léegi donc muy jeexite Serigne Cheikh Amadou Mbacke di Fatma Serigne Cheikh yemul foofa dafa jël ay doomu aadama formé leen ñu dund ba nekk ay milliardaire te caabi pour leen fenn ginnaaw laaj ma kan ku mel ne El Hadj Jili Mbaye waaw ah, waaw Serigne Cheikh moo ko formé teg ko ci yoon mu liggéey hmm. laaj ma kan ku mel ne Alaaji Badou Sey euh, ndeysaan Serigne Youssou Mbacke moom Serigne Cheikh Fall man mu ma nettali benn anecdote bu am solo ci Alaaji Badou Sey hmm. daan ñu lëj laal daal ku ko mën a dimbali ci réew mi ko kenn rek laa xam ku la mën a mu ne oh. dem xoolal boobu boobu digit Sénégal ni mu yaatoo ah. ku lay dimbali ñu ne Serigne Cheikh mu demee mi ngi yoree këyitu këram titre foncier bi mu ñëwee ak euh, li nga xam ne moom mooy euh, mooy décharge endettement pour wane ne yor na bor bi mu ñëwee daf ko ne jabb Serigne Cheikh Serigne Cheikh jël lam soxla woon triplé ko jox ko Serigne Youssou ma nettali moom Serigne Cheikh Gaynde Fatma. triplé ko mu jox ko triplé ko jox ko kooku Badou Seye àndaloon ni ko asgor boo ko lebalee lu mu mënta fay dootoo ko gis lii dama ko ko may. xoolal boobu vision. Serigne Fallou Mbacké nee Serigne Cheikh Mbacké day lu mbax def ko quelle générosité. wa dañu ne dañu ne manam nim daan jëfé quelle générosité. da daan wax nit ñi bàyyi leen ñuy wax lu ñu xamul ngay def lu ñu mënul. Serigne Cheikh loolu la wax. te wa Sénégal ren wax bi da bari Alaaji Sall bi gi wax ji dafa bari lu nekk nit ñaa wax Serigne Cheikh nit ñi bàyyi leen ñuy wax lu ñu xamul ngay def lu ñu mënul. Serigne Fallou Mbacké nee Serigne Cheikh Fatma nee lu mbax wax dana ko def waye loko wax mu def ko ku deggon ndigal la en 1970 ñoo ngi signé Seigneur Cheikh Seigneur sëñ son Soxla ak sëñ Mbacke ni ko waaw Mbacke Cheikh fan lañ koy def. ndeysaan mu leen sëñ Cheikh mën naa wéttali sax maamam. mën naa wéttali social bu ci kenn xamul nu mu toll ñoo xam ne da daaw sax xam naam nañ doon ay sénégalais rek mu dimbali leen ñu jàngi ku mel ne Cheikh Anta Diop soutenir na ko politiquement parce que patriote la woon hmm. taaw Cheikh Anta Diop sëñ Cheikh Gaynde Faar ba la ñu ko tuddee te master ren léegi li mu bokk ak moom ah, waaw ku mel ne Abdoulaye Wade en la ko financé mu taxawal parti politique hmm. il a soutenu Senghor il a soutenu Lamine Gueye contre Senghor en législative hmm. kon Serigne Cheikh taxawaayam ci réew mi ci ngeen ñu liggéey am dignité am personnalité mën a dund seen ngor boo ko doon wax fi ngay fanaan. waaw ay doomam tam ci siège boobu la leen teg. amul benn doomu Serigne Cheikh boo xam ne nekkoo un intellectuel de haut niveau. mën nañ ci jël ku mel ne sëñ Abdou sëñ Abdou Rahman sëñ Abdou il était maîtrise il maîtrise il était une maîtrise en sciences économiques. sëñ Abdou Rahman mii fi nekk daf ko bañ ba jàng arts martiaux troisième dans le judo. macha allah yemuñu rek parce que xam nga arts martiaux dafa yar doomu aadama. waaw dafa yar nit. discipline ngay am très bien. donc c' est comme l' armée Serigne Cheikh kon mbooleem facetu dundu doomu aadama

dafa doon ko am jëm fu ne ci mbooloo moom ngay jëkk seen walaay doonoon doomi buur waaye incarné ay valeurs dañuy wax ne Serigne Cheikh il incarné une pléiade de valeurs sublime ab noble la hmm. mbaaxam hmm. ak tabam ay bokkam mën nañu ko seede ak gëm yàlla hmm. eh, am na ko melante ni benn jour soxna Fatma mas na ko ne ah sëñ Cheikh tey de la àllarba mbaa doo tukki ci alarba ji mu ne ko mu ne ko mu ne ko mu ne ko soxna si mu ne mu wuyu ko mu ne ko suñu borom ragaluma ba may xaaree alxames waaw parce que suñu borom ba dama xaaraa ko de. gaynde faat ma soxna ma am ma dama xureeji saaxa wala soxna mbay ma dum saaxa saaxa wala faat ma. aywa eh, sëriñ Cheikh doonoon jëmm joo xam ne bëggul woon gor surus. Hmm. Alaaji Abdou Aziz Dabakh. Hmm. ndeysaan Pape Mansour dafay nett li mas naa daw ba ci àgg mu kër googu ci Colobane. li hmm. ah, borom kër gii de ñu ne ko ah sëriñ Cheikh Fatou mu ne. fee mu jëm di xaw ma waaye fii mu dëkk fii mu newoon day bàyyi fu kenn ko gën. waaw loolu ala ala jil ala jàpp moo ko te teewoon. ala jil moo ko eh, ah, eh, gars yi ñu ngi may signalé ni 10 minutes moo ñu des. oh malheureusement. mais mais mais lu leer il faut ñoom deuxième partie. Ah, loolu dafa am solo ah, Serigne Cheikh. loolu alaaj jéeli mbay moo ko wax. dëgg la alaaj jéeli. maître lii ka mm. ba ku baax. maître lii ka ba suñu jigéen waaw notaire bu mag bi. waaw doomu ndeyu doy doy sëy na bu fa taa. sama doom mbokk ndeyam soxna Mbodj waaw waaw Mbodj Mbakke moom Serigne Mbakke soxna doom soxna si la Njaay min fayee sama nga xam ne dorobu jaal gu gus lay bëndoo Mbodj loo waaw euh, mën a kaayetan eh. waaw waaw lii ka ba kaayetan lii ka bu mën a kaayetan ma maa ngi ne la ko ko yeetan mi ngi noonu daa Alaaji Mas ah, Serigne Cheikh Alaaji Jili Mbaye moo waxoon loolu ci moom ni Serigne Cheikh nawloo naa ko def naa ko nawle dëgg la ndax gisuma xaw ma fu mu jëm waaye fii àdduna gisuma koo fi gën hmm. te jukko yu baax yooyu la nawe woon Serigne Cheikh hmm. lii ka na sama loolu nekkoon koo xam ni ba me mën a def lu baax ku baax woon te ñaa mën a wax lu baax waaye di di noobu comme ni nga ko waxee te laa jili bay sama doom la daan dox ndax alaaj jili bu fekkee ne bu daan dimbali nit boo def naa sax doo xam ni ala jëri moo lay moom ngay wax dëgg la ndax lan woyof nga ak wàcc nga ak mbaax waaye Serigne Cheikh boole loolu lépp te boolu dara ak coow te xam nga dafa am solo xam nga dafa wax benn wax boo xam ni mm-hmm. mooy li wax léegi mu ne ku koy bañ géwal mooy comme looy amoo loo maye. wala ku juddu wala su juddu rafetul. waaw El Hadj Cheikh Touré da caa teg daan wala nga loo maye te amoo xol bu ko joxe. la ilaha illallah. El Hadj Cheikh de xol la. amu joxe nag mooy bàyyi nday xarit Balla Touré. ndeysaan ak yaama ma sama géer googu. macha allah <laughs> di ndox sëñ Cheikh Irada. ndeysaan ak euh, soxna Mbaye Touré. waaye Ndeye Touré nag sunu waa ji. sunu xarit ndeysaan waaye Ndeye Touré nag moo jur Abdoulaye Dieng belal boutique

waaw kon xarit bal la. ni mun ndax am nga euh, wala euh, am nga yëpp ma ne ko waaw waaw. Ah. mu nekk du du mën yow léegi ndax daam du mën nekk. Ah. waaye waaye dinaa la ju ndeysaan mm. loolu mu la bëree bëri. ah waaw yaa ko moom yëg boobu rek doom doom ñi nag moom. kii kii xam na xam naa. yaa ko moom. <laughs> Eh, léegi nag. laaj ah, cinq minutes boo ñu ñu rek tuuti rek. wa mais di dama baa ñëw ci rapidement sëñ Cheikh dafa ñëw ci rapidement dafa am relation ak mbooleem kilifa yi mhm. François Tombal Mbaye xaritam la woon mhm. Omar Bongo xaritam la woon mhm. Assane de daf ko tudde doom rakki soxna May te amon na Casablanca kër sëñ Cheikh daan wax nit ku nekk ci barab xam ko li fa jógee dafay am la mu moom amoon na kër Côte d'Ivoire amoon fa ay tool Treichville amoon na fa kër bi nga xam ne yàlla dogal na mu dem màkkatal mu karam ñu daj Faysal invité ko ñu dajal près de 60 millions ay asaka jox ko ko mhm. bi mu laajee dañu ko asaka la mu leen asaka yàlla daf ne am ñu ko war a lekk mhm. te man yéewu ma yeeg asaka nañ ko jox ñu ko yeyoo oh. ba mu ñëwee Sénégal dafa mbokk ne ko sëñ Cheikh mer nañ la torop lan moo tax li nga def nga def ko lu tax ñu jox la xaalis nga bàyyi ko mu leen su ma ko lekkoon gi nii ngeen ko nettali leen koy nettali mhm. <laughs> dégg nga wax ji waaw mu ne su ma ko laaloon nii ngeen ko nettalee noonu ngeen koy nettalee non non Cheikh Macky. bu garaw ko. c'est la haute noblesse. loolu yeggale woon ni mar bu mu la tax naan pour. xam nga Serigne Seck wax na lu mel noonu. Serigne Seck man ne ko baax mooy la def lu baax def xaalis loolu du bah moy nit ñew di la wax li nga xamni dara leer na dëgg nga faj soxlaam. looloo di baax nee looloy baax. dëgg Cheikh Mbacke kon ma baye la nga taguto taguto bu dul dak rek inshallah allah. jërëjëf Alaaji Sall bi nga maa ngi lay sant bu baax ci invitation bi. di sant euh, Mass sama bok sama xarit sama papa ju di euh di ñaan rek l'état sénégalais qui soit reconnaissant à Serigne Cheikh Fall. Mm-hmm. Serigne Cheikh limu def ci réew mi. Mm-hmm. yoon yi mu tracé. fondé plus de 250 écoles. Mm-hmm. ak liggéey bu lay bu mu liggéey tay jaroon sax ben rue. Hmm. wala benn avenue. Ah wala benn ah école bu mag. ça c'est vrai ça c'est vrai l'état sénégalais doit être redevable à Serigne Cheikh Fatma ñu tuddee ko dara. loolu lu am solo ndax jàmbaar buy liggéey. Hmm. di une référence pour toute une nation. Hmm. ndax bu umatu islam moo ko ñoroon. Ah. war nañoo rendre vraiment à César ce qui est César. Serigne Cheikh ñu delloo ko njukkal. maa ngi nuyu njabootam gépp la ko dalee ci Serigne Abdourahmane ba ci am caatam bàyyiwuma kenn ndax bu limé fi la yellu ma ngi nuyu njabootu Serigne Mbacke yëpp sama mag yu baax ji ni bu Serigne Moussa Mohamed waye soxna am ni Serigne Mbacke soxla waye sama Serigne Serigne Khadim moom Jóob takk mu gà moom gànk la mën mu xuree jëbara ñaan maami Serigne Cheikh maa ngi nuyu nag samay nit am satu Jóob moom soxna Bintu daan di ko baax ci man di nuyu Mbay Jéen nii ngeen def la may defal ci Pape Mbaye étincelle taalibi Serigne am mm, seen borom maa dina jëng kaamel ko du yàlla fakk musu mbor mi jigéen maar di nuyu baax Cheikh Mbacke Kebe directeur holding Kébé di nit ku baax Serigne Baara moom Serigne Son bu soxna moom mi soxna noppee baax la ci yow ndax yaa may defal du baax maa ngi nuy Gala Sall di sëtu Cheikh Modou Fadal di doomi Alaaji Ndiaw Sall ci Touba Buri Serigne Cheikh lañ ko tudde mu jël jikkoom mhm. nday soxna waaye di nuyu itam ki nga xam ne mooy Mbaye Thiam grand journaliste di sama conseiller mhm. waa Sen TV nag mënu ma ne nak nuyu le président Bougane Gueye Dany taalibe Serigne Mbacke lu mu am Serigne Mbacké mm. ak Alaaji Ablaye Mbaye moo ma fa yóbbu ku lim juumal ko fa di la doon invité jërëjëf parce que li ci des sax lépp lépp li ñu naan li duf ci nag bi xaju ci cin li ndax Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma doyul ci ñu ñëwaat ah, àggali alaaji Mas ma bàyyi la yow nga tàggoo askan wi lay seetaan waaw jërëjëf ah, alaaji waaye santaat ñëpp rek laay laay gërëm ñu baax ñi comme ni nga ko waxee ñi nga daaneel noonu euh, Serigne Khadim Mbakke moom sëñ Mbakke soxna loon ndax. ñun mooy suñu cër waa Njàmbur. dëgg la waa Louga Louga. macha waaye bu bàyyam defoon de son defaraat toogaayam. déedéet. seriñ si Serigne Khadim li muy li muy li muy li muy wóor ëpp li muy li muy li muy li muy li muy li muy xéwul. bilaay. waaw ñu dénk ko sama jarbaat nag maam Fatou Diakhaté. moom soxna Mbaye. moom soxna Mbaye moom soxna Mbette. moom soxna Suloo. tamit loolu am na ko sa Suloo nijaay mooy bi sama yaay màkk. faatu mu yóbbu ubal ko ubal ko ndeyam daaru ca ca daaru mu si soxna Suloo loolu bokk dem ñu ngi leen di ziar di ziar ñu baax ñu wax Gala Sall moom di ku baax di ku baax ko soxna Soda moom sëñ baax rek Moussa Sall barki dem maag Sall mi def noonu def teranga jom solo sëñ Fallu Sall moom ku baax la a baax di nuyu nag sëriñ Galas Kaltoom ndax dañuy seetaan chaque jour di ku baax li mu doon ci réew mi moom di ko ziar di ko nuyu mm. di nuyu nag mbokk yëpp waaye di nuyu Assou Mbacké Fata ah sama jigéen. du fa tàggat doomi soxna Muskoora. waaw doomi soxna Muskoora moom waaye ma nur na baayam lool. barki borom tay nur na maam lool. walaay dina sëriñ Moustapha moom soxna Muskoor. walaay soxna Muskoor ak soxna May. soxna ah, ñoo bokk ndey ak baay. soxna May moom la ñu joxoon Basirou Fall. walaay ndeysaan Assane ak Cheikh Fall xujja moom. sama nijaay jur leen Basirou Matar Assane Mayoro Matar Assane Serigne Ngéeg Absa Serigne Absa Masalah, masalah, masalah, nga masalah, masalah, masalah, masalah, Matar Kumba Gallo masalah, masalah, masalah, masalah, masalah, masalah, masalah, masalah, masalah, masalah, masalah, Kumba nga masalah, masalah, sama masalah, masalah, masalah, masalah, masalah, nga ci masalah, masalah, masalah, masalah, masalah, masalah, masalah, masalah, la ko masalah, masalah, ne ko masalah, nga ci masalah, masalah, masalah, masalah, masalah, masalah, masalah, masalah, masalah, masalah, masalah, masalah, masalah macha allah di nuyu taw bu bi ñun ñu leen di ziar jërëjëf alaaji Maas macha allah wax ji am na solo trop waaw ñu bàyyi papa yow ya, it ma may kontaan Njaay yow xam nga sunu bàyyi nga di sunu xarit di sunu soppe walaay dama lay ñeewante sax léeg-léeg ci déplacement bi waaye nag euh, liñ naan ab àll fii ñuul moo fa di ñàkk ah, yow nit ñëpp la soxla te yow buñ la soxlaa nga ñëw wuy suñu loolu dafay rëy ci ñun kër gi kontaan nañu kilifa kër gi kontaan nañu ñëpp kontaan ci sa teew tey fii ci kër gi kon nag papa ma bàyyi la rek nga tàggoog askan wi. ba ah. beneen émission incha allah. jërëjëf sall bi ñu ngi gàm bi ngeen di. jërëjëf jërëjëf ah, ah borom kër gi Mm-hmm. ci laa gën a kontaan ndax di sama xale sama xale doom. ndeysaan bëgg ma. Mamadou Bakane Mamadou walaay walaay walaay walaay. yàlla na kër gi. amiin kii kër yi kër yi lu bëree bëri. amiin amiin yàlla lépp di nga jàmm rek na ci. amiin amiin jaay di gërëm di gëm la wax sànq dégg di ñaanal ni mu sama yaay ji bi mu gaañoo. waaw waaw sama maam ñëpp sama maam yéen ñi fi ñëw ñëpp. maa ngi di gërëm di di sant ñu bëgg ñoon te ñëw ñëw ko njut maa ngi gërëm di di sant. Cheikh Ndiaye si nag ak sa ak ma Rama Mbacke sa sama mm. yaay soxnaam. ndeysaan maa ngi bëri ngërëm. Mm. ñëw nañu si bés ba. Mm-hmm. mu gaañoo ñaar ñetti fan yi. Mm. ñëw juróom-ñetti fan yi. macha allah macha allah walaay a gën a nag àndaale bu mag. Ah, yow loo am ci réew mi da nga woo. yow loo am ci réew mi rek mérité woo nga ko Ndiaye. waaye naka Rama Mbacke bee moo moo fa jëkk. ndeysaan ndeysaan jërëjëf Ndiaye kon nag ah, Ah, nijaay yi. sëñ Abdou Rahman sëñ Abdou Fatah nijaay yi. sëñ Abdou Xaar mu bañ ma ñaata comme ni ko ñaaw. jërëjëf Ndiaye jërëjëf Pape Xaar yaa ngi Abdou Xaar. jërëjëf yaa ñuy tëj yaa ñuy tëjal ak émission beeg waaye xalam. Ah. mais nag xamal la man bi ma bëgg nag mooy bi nga naan seen baay benn yoon la tukki France la demoon. indi plan jumaa ji xaw ma noo ko way wu neex mi ngi nii voilà di wax ni rek mbokk yi tey li moo nekk suñu émission géewu ndaanaan yi ñu doon waxtaan Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma di nuyu sama xarit eh, Serigne Awa Ba ñu bu baax a baax maam Cheikh yoo tam ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di nuyu tamit bu baax na sama Serigne Serigne Ousmane maa ngi lay nuyu bu baax ndax tey lii ñu waxtaanee eh, lépp rek dafa dellu siwaat ci yaw di nuyu sëñ Dan bu baax di nuyu njaboot gépp rek bàyyiwuñu kenn di nuyu itam bu baax a baax kenn koo xam tamit kenn la ci ma di sama xarit muy maître El Hadj Diouf du ma ko fàtte benn yoon sañse bi moo fi jaar euh, di nuyu tamit bu baax Ibrahima Dieng Dieng sa mbooloo bërëm bërëm daaw ko ki nga xam ne Aline Dieng waaw Ibrahima voilà mi ngi ma koy wax muy naa ma gis na ngeen Kaolack waaw ma nag ma sax yaa waroon kii mais nee bor bi dina ko fay parce que ñawal moom taala mi ngi noonu ñëw sëñ Mbacké macha allah macha allah kon nag mi ngi noonu rek euh, sala bi nga leen nuyu ak ay invité waaye dafa am équipe bu mag nekk ci ginnaaw réalisation bi Laay Njaay moo ci nekk ci caméraman bi ma faal fal ak ki nga xam ne moom mooy yore son bi mu ñu koy wax ibaa di sunu jarbaat moom di sunu xarit ak euh, équipe production bi yëpp ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn les hommes de l'ombre di wax ni émission bi nii rek lay demee ay bis bu nekk ñu indi benn mag waxtaan ak moom beneen dimanche bu ci topp ñu waxtaan ak benn artiste yoo xam ne dafay xew ci réew mais lépp ci tradition lañ koy traditionnel lañ koy teg ni ma koy wax saa su ku fi dégg lu ko naqari nanu jéggal dafa rek moo ñu tax a ku fi dégg ko neex kattanu borom bi la du sunu njàmbaar yàlla sunu borom mi am jàmm te ku mu jàmmal dooy jàmmarloo yàlla na yàlla dooli jàmm ci réew mi ma bàyyi leen sunu baay alaaji bu kunta jaay mu tëjal ñu émission bi bisimilah baay sala sama doom jaabi eh eh sala baaw benn yoon la tukk eh. waaw sala baaw sala baaw mu baax baaw ewaay eh, bunoo ba wet wutoon ndimbal Sénégal xam na la ok xol yi di benn jëmu yi di benn wax man doon benn waaye xalaat na rafet ba lépp di benn